Toujours dans votre actif du jour de ce jeudi 18 janvier 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV Guinna, bi nga dit Lac de guerre di pensionnaire ou écureuil Walo ginnaw biñ ko jiiñee affaire escroquerie au visa ci ben 3 millions cinq cent boo dañ ko encaissé won mom ak ben complice un bi nga xamanteni commerçant la mo len ko joxoon fofu ci pour ñu wutal ko visa ginnaw lool nag jotuñu sen visa si le commerçant bobo porté won plainte bobo batay ñi ngi nan Lac de guerre était introuvable qui di complice aussi ken gisuko nañu nañuy dal ni que Lac de guerre localisé nañ ko jamono ji mi ngi fofu ci France mais complice un bataille dit ji ken gisagu en tout cas suñu sukuniko dal ci présumé escroquerie bi nga xamanteni dal mi ngi ndoddu ki nga xamanteni moy écurie pensionnaire ou écurie wala di Lac de guerre 2 ginnaw bu mu joxee signe de vie ñukoy recherché muy eh, chef de file écurie wala bu way finalement accepté na tontu ci li nga xamanteni moy convocation police su nimzat ginnaw bi ñu sukkandikoo ci nuy source mi ngi xamali ka dal actuellement ki di Lac de guerre nekul fi ci Sénégal mi ngi fofu ci France mais promettre na que daal que saa yu dellu sé dina wuy ji fofu nga xamanteni moy police nimzat Nimzatt manam pour répondre ci tontu ñi nga xamanteni moy enquêteur ginnaw nak suñu sukkandikoo ci éclatement affaire bi nga affaire wu présumé association de malfaiteurs la sukkandiku ci escroquerie bu soxal wàllu visa ci produit su benn tailleur boo xamante ni turam AS la ginnaaw ki nga xamante ni candidat bi nga xamante malheureux la waroon dem foofa ca tugal manifesté wu daal également dafa déposé benn plainte contre ki nga xamante ni mooy Lac de guerre 2 ak complice ci benen côté bi nak muy commerçant bi nga xamante moy complice au Lac de guerre de di Salam mom dal jamono ji ken gisu ko muy présumé complice ki nga xamante moy Lac de guerre dañuy japp ni que dal fugitif la dawna na nee na muy nee na première audition bi nga xamante defon nak fofu ci police bu mu reconnaître que li moy xamante moy ay fait yuñ ko reproché ci source bobu nak la révélé que même benen dossier bo xamante tay tey ngi koy poursuivre dal. ci walu 200 millions de francs CFA ñu ngi koy relater en tout cas muy li nga xamante dal. ben affaire la bo xamante mi ngi secouer la toile digënté Lac Lac de guerre ak ben commerçant bu tuddu Salam ben tailleur mo len joxone 3 millions 500 pour ñu wutal ko visa bobu batay ñu lek xaliss bi gisul dara si le tailleur bi dem porter plainte ci première audition bi ñu leen convoqué woon après si le ki nga xamanteni moy Salam daw Lac de guerre ñu ngi don nan il est introuvable mais fofu mu nek ci France dal di tontu xamal ne mi ngi fi ci France mais saa yu delu ci senegal Sénégal dina dem muy ñi nga xamanteni moy enquêteur en tout cas muy affaire bo xamanteni dal doyna war ki di Salam di complice sur Lac de guerre ñu koy toppaat ci benen plainte bo xamanteni 200 millions en tout cas dama donc 3 millions 500 mo gëna a 200 millions. <laughs>